Omar Diaw ma jité association bi ñuy wax association des communicateurs en pêche des radios communautaires bu association bo xamné mo dajalé dajale eh, ñi nga xamné ni ay animateurs lañ ci ay rajo wala ay journalistes yo xamante dañuy bind ci walu napp li Saint-Louis ba Cap Skirring waaw tay li nga xamné mo ñu fi dajalé fi ci Warang ñi ànd ak suñuy partenaires di leen sante di leen gërëm muy la ak PERSEM xam naa loolu dama ko fàtte wax ci tubaab euh, parce que ñun Kawpa moo ñu jàppale ba ñu taxaw boobaak léegi persim bi mooy deuxième fois ak lu mel ni ADEPA jàppale ñu ba activité yi ñuy def yëpp ñu koy def c'est pas évident parce que bëri na organisation yu sampu te ba tey mënuñoo def dara mais ñun saa yu ñu bëggee def dara ñoom dinañu jàppale ñu def ko euh, tey nag ndaje mi li nga xam ne moo ko waral mooy géej gi ñun ñëpp ñoo ko bokk tey dañ doon sensibiliser nit pour ñu am yoorin woo xam ne yoorin wu sax dàkk lay doon waaye géej goo xamante ni dina amal ñëpp njariñ muy benn beneen bi itam ñi ngi waayal tourne boo xamante ni ci Sénégal bu fépp bépp dëkk boo xamante ni jonjoo ak li nga xamante ni moom mooy géej ba rax ci ñeneen ñoo xam ne nii ay consommateur lañ ci euh, yeneen bërëb yoo xam ne sax dafa gën a sori ñu dem waxtaan ak ñoom xamal leen situation bi nga xamante ni ci la géej gi tollu parce que nag géej dafa nekk loo xam ne nii lu am njariñ la bu ñu waxee géej li muy créer ci ay liggéey amul benn secteur booy dem fekk ko fa géej tey li nga xamante ni mooy stabilité stabilité sociale maanaam pour jàmm am ci réew mi li ci géej di juyee kenn mënu ko wax géej tey ci la sécurité alimentaire parce que tey boo gisee borom kër yëpp attan seen i njël c'est parce que jën moo fi nekk bu doon ne yàpp la rek xam nga man awma 3000 yu may jëndee kilo bi yàpp wan jën moom moo fi nekk loolu nag bu ñu demee ba nga xamante ni ñu ngi ko bëgg a yàq ñàkk ñun suñu rôle la en tant que ay animateur di wax nit ñi dañu ñu déglu ah ñi dem ci terrain bi waxtaan ak ñi nga xam ne nii ñoom ñooy dem ci géej ga di napp jën yi waxtaan ak ñi nga xam ne ñoom la ñu dénk réew mi ñu yore géej gi waaye waxtaan ak ñi nga xam ne itam ay consommateur lañ parce que bu ñu foog ne géej nappkat bi wala femme transformatrice maanaam kii soppali jën wala mareyeur bi jënd jën wala euh, charpentier bi defar gaal rek moo ko moom déedéet géej gi ñun ñëpp ñoo ko bokk te ñun ñëpp lu ñu bokk dañ koy waxtaanee te tey géej gi bu amee problème bu ñu foog ne ñooñu rek ñooy am problème borom kër yi nga xam ne ni lii leen boole ak géej mooy ndawal ga ci kër ga moo leen boole ak géej sax dañuy am problème loolu nag bu amee ñun en tant que ay animateur te xam bu baax njëriñ li géej di am war nañoo dem yee nit ñi war nañoo wax ak suñu population ba nga xamante ni danañ seet naka la ñu yooree géej gi mu nekk yorin woo xamante ni wu sax dàkk la pour que ñëpp mën ci jëriñu waaye xam naa ne ñun bi nga xamante nii sosu nañ ak léegi at lay toll yàggagul euh, te bi ñu paree bi ñu sosoo ñun li ñu war a def def nañ ko mooy bind leen bataaxal wan leen na leen ñun kat kuréel la goo xamante ni wax la ñuy def ci napp gi e, waaye yàgg liggéey ci li nga xam ne mooy napp gi parce que ñi nga gis ñi ñu ci bëree bëri bari ay pêcheur la ñu woon ñi ay mareyeur la ñu woon te am na ci ñoo xam ne ba tey ñu ngi ko continuer doon waaye ñi ngi continuer di def li nga xam ne mooy ay émission bi ñu defee noon nag wan ko ne ko ñun sa njaboot lañ ba tey nag réagir agul waaye ñun du tax ñu ñu ñu tàyyi du tax itam ñu bañ a def suñu liggéey parce que liggéey bi ñuy def defaluñ ko président defaluñ ko ministre waaye askan wi yëpp lañ koy defal parce que ñun ay sénégalais lañ bokk ci réew mi jis secteur boo xamante ni lompoñ na am na jafe yu bari yoo xamante ni mu ngi koy dund yoon la ci ñun ñi waxtaan ak nit ñi ba ñu seet naka la ñuy tëggee secteur bi mu nekk secteur boo xamante ni bu bari njariñ la loolu nag ah, bu ñuy wax problème yi nga xamante ni am na ci napp gi ñu bari ñu ngi koy wax parce que tey ñaata nit ñoo ñàkk seen bakkan ci immigration clandestine bu ñu demee fële li ñuy wax mooy suñu géej dañ koy jaay suñuy go euh, autorité dañoo signé ay accord de pêche ak union européenne suñu autorité dañuy joxe ay licence de pêche priorité yi nga xam ne ñoo nekk mooy sénégalais yi nga xam ne nekk ci Sénégal nekk ci pes artisanale di dundal li nga xam ne mooy Sénégal ñooñu ñooy priorité suñu amee nag lu ëpp loolu mën nañ ko jaay waaye nag amuñ lu ëpp loolu li ñu am matewul parce que kenn ku ne ñun xam nañ ne la nga daan lekk ci jën ak li ngay lekk ci jën léegi du benn léegi nag ñu gis ne ñun comme ñun dañoo war a tëdd njaaxaanaay duñ faral kenn duñu contre kenn waaye dañuy wax li nga xam ne moo am parce que ñoom ñu ne ci secteur bi yëpp dañuy jonjoot di waxtaan ak ñoom dañuy invité ay administrateur ay ay wàllu administration dañuy invité marier femme transformatrice consommateur ak leneen ak leneen kon ñun buñu waxé nit ñi war nañu dégg né waxuñ pour contre kenn waxuñu itam pour faire plaisir kenn waaye dañuy wax pour que vraiment ñi xamné fiñu jëm ci napp gi buñ ci jogul ah fañuy ñuy ji duñu neex pour ñu baña ag ci lool nak il faut ñun ñu jog bay siñu war